salaamaaleykum internet du Feeling Dakar dal leen ak jàmm les actualités les plus marquantes de la semaine la ñu ñëw ak yéen dañ ci dooree ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko moom ak euh, ki nga xamante ni moo di Adji coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr moomu lay nekk na loo xamante ni euh, fan yi yëpp moo lëmbee réseaux sociaux yeeg euh, télévision yeeg site internet yi. ba tax na rek ñëpp moom la ñuy waxtaanee ba mu dooree nag moo di Ousmane Sonko dafa daal di demoon ci benn institut de beauté muy Chouette Beauty ci noonee nag la demoon amal li nga xamante ni moom moo di massage waaye nag gannaaw loolu dañ ko daal di tuuma rek ni dafa daal di sàkku benn xale bu jigéen boo xamante ni mu ngi wuyoo ci turu Adji Sarr ci noonee coow li commencé bëri rek ba tax na sax amoon ay jàmmaarloo yoo xamante ni daal di woon na am ci diggante fare ak Ousmane Sonko ak takk der yi mu nekkoon loo xamante ni nag dal di woon métti lool ba tax na sax am na ci ay ñooñu Ousmane Sonko yoo xamante ni ñoo nga ca l'hôpital ñenn ñi dañ leen a teg loxo ba tey ci li nga xamante ni moom moo ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr moomule ci noonee nag bëri na ñoo xamante ni daal nañ ci àddu ku ci mel ni Pape Djibril Fall moom daal na ci yëkkati ay kàddu Me El sax moom tamit daal na ci yëkkati ay kàddu moom lu mu daal di xam ne rek moom moo di kii di Adji dañ ko daal daal di néewal doole ba tax na sax moom dafa daal di euh, porté wu volontaire ngir défendre ki nga xamante ni moo di aji Sarr nekk avocat wam ci noonee bu ñu desee ba tey ak ki nga xamante ni moo di maître El Hadj Diouf moomu lay sax moom gannaaw ba Ahmed Aidara ak ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang daal di waxee ci biir mi rek moom euh, maître El Hadj Diouf damu daal di xamle rek moom moo di ay plainte euh, dinañ ko def contre ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Ahmed Aïdara ak ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Momou moom nag kàddu yooyu mu ngi ko doon yëkkatee euh, ci euh, émission bi di jàkkaarloo di am fu ci télévision Futur Média ci Ahmed Aïdara nag moom dafa daal di def benn audio boo xamante ni di expliquer li nga xamante ni moo di certificat médical moom Ahmed boobu la sax dañuy daal di lu benn extrait rek ci boobule audio. bañ demee ca kër docteur. docteur bi lan la wax nee na ko ci kayit gi. Mhm. li ñu bind ci kayit gi. Mhm. mooy luy xeetoog tëcc tëcc. Mhm. tëcc tëcc. waaw. dégg nga nit bu la nuyoo bës la sax. waaw bu jonjoo. jonjoo. waaw da jonjoo amul ci ci ci ci awraam moom. awra ba léegi ay tëcc tëcc euh, ci kaw gàttal. loolu moom ko daal.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 léegi nag la ñu jàpp mooy ñoom jàpp nañ ne dañoo war a def kon test ADN. Mhm. kon bu mel ni mën mëniwu feeñu fa. mu ngi noonu kàddu yooyu la ki nga xamante ni moom moo di Ahmed Aidara daal di woon yëkkati muy ay explication yoo xamante ni nii moom daal dina koy andi ba tax na kii di Pape Alé moom aussi euh, daal dina def li ni mel di andi ay leeral ci mbir mi waaye nag loolu neexul benn yoon ki nga xamante ni moom moo di Maître El Hadji Diouf ba tey ci li nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko coow li nag daal na bëri ba tax na sax ki nga xamante ni moo di guide spirituel am daal di woon dem seeti ki nga xamante ni moo di Serigne Mountakha Mbacké ci noonu nag moom daan na koy xamal rek ni que lii yëpp wàllum politique la. ba tax na nag kii di Macky Sall moom ba mu yëgee loolu rek dafa daal di jël téléphone am woo ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mountakha Mbacké ngir explique ko rek ni que coow lépp moom takkeew ci laaleew ci du ci lenn. ba tax na nag ba tey ci li nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko kii di yaayam nag moom. daal na def benn euh, sortie euh, daal di expliquer wax li nga xamante ne nii moom la euh, yëg ci noonee sax moom daal dina wax rek ni que mbir mi daal daal dina koy bàyyi ci loxo yi suñu borom dañuy daal di teewlu yooyu lay kàddu. koy dundee ah ngeen ko dundee yéen ñëpp ni ko ñëpp dundee laa ko dundee rek du lu ma neex parce que su ma nee neex na ma wala su ma nee aw ma ci lu lu tàng xol dama dama wax lu ma neex waaw mais nag loo gis nag. nit koo gis rek ci àddina waxoon naa ko fi benn bis benn journaliste nit koo gis ci àddina dafa am sa destinée dafa am balaa judd lu ko yàlla fu yàlla teg yoon bu ko yàlla teg ne fii dina fi jaar fii dina fi jaar fii dina fi jaar waaw gëm yàlla nag wóolu ko moo ko gën waaw. yan kàddu nga yóbbante sa doom Ousmane Sonko jamono bi. ah Ousmane Sonko moom du ma ko yóbbante moom du ma ko yóbbante dara dama ko naa rek moo mu mu góorgóorlu rek. waaw mu góor góorgóorlu rek ndaxte sax ci li nga xam ne moom lañ ko yare woon muy njub ak jubal loolu rek woote dal tamit ci réew bu baax a baax a baax dal bu baax a baax a baax lépp lu am ni depuis affaire bi amee du duduma neex lu may suma sañoon dara du am loo xam ne li day yëkkati dënnu nit wala mu yëkkati jëm wala mu yàq alalam dal bu baax laay ñaan. yaa ngi woote itam ñu wax dëgg ñu wax dëgg ci mbir ah dëgg sax. dëgg moo jëkk mooy mujj. waaw dëgg moom moo jëkk mooy mujj ku ci wax lu dul dëgg itam bu soobee yàlla yàllaa ngi fi te yàlla moom dëgg la xam dëgg moo jëkk dëgg moo mujj loolu rek laa ci ñoo ko déggandoo yaayu usmaan Sonko la woon moom euh, kàddu yooyu la daal di euh, yëkkati di euh, soutenir ki nga xamante ni moom moo di doomam ci wàllum soutien sax bëri na ñoo xamante ni tamit daal di soutenir ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ba tax na sax kii di mu Moustapha Gueye Tigre bu Fass moom tamit daal na yóbbu ndimbalam ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ndax daal di woon na koy seeti bëri na tamit ñoo xamante ni nii daal nañ def li ni mel lu ci mel ni waa Y'en ñoom aussi daal nañu seeti ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ngir apporter ko soutien wam ci noonee tamit kenn koo xamante ni moom jamono ji daal dina joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko muy Aïssatou Diop Fall Aïssatou Diop Fall nag moom daal di woon nañ koy dalal ci plateau boobu di ndumbalaan di am foofu ca euh, Sen TV moom nag euh, daal dina yëkkati ay kàddu yu ñagas demale ko euh, ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko moom Aïssatou Diop Fall sax am na habitude di yàq lu mel ne xamee ki nga xamante ni moom moo di Ousmane ba tax na dañuy daal di teewlu yooyu le kàddu et man xam lu ma gën a naqari mooy li may wax il faut que les hommes politiques arrêtent de nous prendre nous les sénégalais pour des demeurés euh, ñun dofuñu quoi ci réew mi lañ dëkk ku faju ku feebar man actuellement nii am naa ku nekk sama kër ku ma jege ci laay waxee ku nekk sama kër ku ma jege ah, man xam nga aw ma dara euh, dafa soxla kiné kiné ñëw sama kër matin et soir ñu ngi may déglu matin et soir ku ku war a faju damp massage damp mais am nga fooy dem wala lu gën a simple sax mooy ñun ñu xaw a am tuuti tuuti rek. mais dañuy ñëw sa livraison à domicile nu ma amee noonu la service à domicile yëpp am sa kër la ñëwee nga ñëw mais centre de massage bi kenn dem fa pour pour ay fajoog yooyu dem yóbbu fa kenn la fa yóbbu nit ñi du fii laay toog da ko fa ah, wax wax wax neexul dégg a neex donc man boobu dama doon xaar ci moom euh, à la base nee ne mooy que d' abord qu'il démente sa présence sur les lieux il ne l'a pas démenti moom ci lu mu sukkandiku te boobu malheureusement boobu ba léegi je vois que sénégalais yëpp foofu la ñu taxaw accroché wu si mooy non y' a pas eu viol y' a pas eu viol y' eu quoi c' est c' un questionnement que les gens ne se posent pas. mais euh, man son problème que... non regarde moi oui. mon, mon problème c' est mooy Ousmane Sonko euh, woon teg tànkam ci salon de massage boobu ak beneen bu mu mënta doon. pourquoi parce que Ousmane Sonko kilifa la ci réew mi. nee na yow mi am na foo xam ni fa nga doon dem démb bëgg dem ba nga nekk lu ba ba sénégalais xamul ne Aïcha doo fa delluwaat sañoon dugg fu ne doo dem fu ne doo dugg fu ne doo wax ak ku ne doo ku ne. mais Aïssatou est-ce que débat bi foofu la est que débat euh, am na droit dem salon. non non nee l'interdit déjà. non voilà juge que s'il juge ne am na pour dem salon de massage bi il est libre. c'est son choix tu sais euh, euh, xam nga je parle sous le contrôle du professeur. tu sais euh, liberté ak mm. choix ay concept la yu rëy rëy yoo xam ne mais euh, euh, dafa abyssal sax euh, looy dégg olof ñuy wax dans l'imagerie populaire boo nit ku siiw moomatoo sa bopp loo ngay dégg na nañ ko nangu nañ ko nangu quoi ba pare nag yow nga yow yow ngay jàkkaarloo état Macky Sall tout son rêve Macky Sall yoonam nekku si ay croissance na yéeg ak na wàcc yoonam nekk si moom tout son rêve c'est quoi qu'il n'ait pas quelqu'un en face qui lui dise non ñu ñu fi doon wax noo ñëpp jël na leen noppi loo leen d'une manière ou d'une autre Ousmane Sonko rek moo nekkoon ci kaw taxaw résister boobu ba léegi Ousmane Sonko mais ci lan la échappé wax nañu fa affaire xaalis ay 94 milliards ay nangam sangam loolu yëpp échappé na ko mu ñëw léegi ci affaire mœurs parce que bii nii attends euh, y' a affaire complot dañu si après je veux pas monopoliser la parole mais. la première faute du du erreur la première faute de Ousmane Sonko mooy d'abord yow yaa jóg en âme et conscience kenn droguew la kenn fekk nga tëdd fenn ñu defal photomontage comme ñu fi gis njox la daan dëggal comprimé nga noonu dañ ma door comprimé yow yaa jóg taal sa oto dawal ko waaxu ba foofu dugg toog tu t'es jeté dans la gueule du loup tout bu ñu noppee ci loolu wax ci ki nga xamante ni moom moo di Wally Ballago Seck moom nag euh, mu ngi euh, waajal li nga xamante ni moo di concert bu mu war a amal foofa ca euh, Gambie moom nag Wally ci waajtaay boobu la daal di nekk sax ba tax na mu ngi en pleine répétition dañu daal di seetaan benn extrait benn extrait rek ci li nga xamante ni moo di répétition yooyu la Thank you. te ni moo di Viviane moom Viviane nag daal woon na dem fi nga xamante ni moo di ca Mali moom ba mu demee daan nañ koy teeru comme ni ñuy teeroo buur moom nag Viviane waa Mali daan nañ koy woon rek ni que moom nekk na koo xamante ni artiste bu mag la te nag nekk na koo xamante ni tamit ñu ngi koy bëggee bu baax a baax looloo waral sax ñu daal di koy defal teeru boo xamante ni daal dina am solo lool ñu teewlu bopp les vidéos. yamba man yamba man yamba saba e kolonelo saba man yamba man yamba ni wala tutana saba man yamba man kol kabi gambe wuje place kabo dakari jamana kono la dakar abo man yamba tunga lambe to saba man yamba saba e kolonelo saba man yamba kol kabi gambe Voilà. On a sorti. Voilà, ça se passe très bien. Ça, on va faire sur la base de production de la saison. On ne sait pas l'espace. Voilà. night, night, night. sunu actualité yi nag dañ koy daal di euh, jeexale ak ay anniversaire ñu daal di koy euh, tàmbale ak Basu euh, Ndeye Soxna Sonko nekk soxna ci moom moo wàdd nekk foofu ca Sen TV ba tax na nak moom Ndeye Soxna Sonko moom si boppam animatrice la foofu ca 2STV moom tamit da doon fêté anniversaire am ni ki la 10 bi ñu weesu mu nekk anniversaire boo xamante ne nag borom këram daal na ko ci defal surprise daal di koy defal teranga daal di koy won rek. ni que moom bëgg na ko lool te yëg na ko tamit dañuy daal di euh, teewlu boobule vidéo ak kàddu bi nga xamante ni moom moo waat daal na koy euh, jagleel soxnaam di euh, Ndeye Soxna Sonko. deux francs de. la daal deux millions. kado bi. daa ji kado daaji bi daaji kado bi daaji kado bi daaji kado bi kado bi eh bi jamaala bi jamaala eh lii jamaala lii la lii eh, ñaareelu anniversaire bu ñuy wax muy bésu Mbathio njaay Mbathio njaay nag gannaaw ba mu defee mariage bu doy waar moom tamit daal di woon fête li nga xamante ni moom moo di anniversaire mu nekk anniversaire boo xamante ni nag macha allah daal dina tolloo ak boromam ndax nag nee nañ bés du tuuti boroom lay tolloo dañuy daal di teewlu boobule vidéo. Mbathio Ndiaye dootu takk dootu takk nee na la ca xol ba yaa koy xasan yow la bëgg yow la choisir dootu takk nee na la ca xol ba yaa koy Yo. nee na la ca xol ba yaa koy xasan yow la bëgg. yow la soo xasir. nee na la ca xol ba. anniversaire bu ñu koy jeexalee nag mooy euh, basu euh, soxna Astu Mbacke ibnu euh, Serigne Mourtada Mbacke moom nag da doon fêté li nga xamante ni moom moo di anniversaire am suñu yaay jooju nag ñu koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ñu koy ñaanal rek anniversaire am boobu ñu koy fêté ay ati at dañuy daal di boobu boobule vidéo. waaw soxna Astou Mbacké mi may bëgg a wéy sama yaram réyul réewul foo ko fekk ma ree happy birthday to you ana doomi jaar happy birthday to you soxna Musi Joobay yaayam happy birthday to you waaye saa mi weer seegoon Astou Mbacké mais

internetu Feeling Dakar cant ak ngërëm ñeel na leen lii la leen andiloon ci ay actualité yoo xamante ni moo gënoon a fës ci biir semaine bi ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di leen jox dig daje semaine prochaine ak yeneen i actualité bu leen fàtte abonné ci chaîne bi di Feeling Dakar TV bës ci cloche de notification bi comme ça vidéo yi ñu ma ci dugal rek ngeen mën koo jot jox ngeen jëf